سيدنا النبي kawel wi liggéeykat yépp nañ jëlaat liggéeykat yépp contenu ci décret bi nga xam ne moom la président jël pour réintégrer travailleurs yi parce que président dafa ni à partir du 13 mars mars 13 mars interdit na liggéeykat dàq liggéeykat ci wàllu secteur hôtellerie alors moom mi ngi jël décision bi la 20 mars pour dàq liggéeykat yi kon nag dañuy wax ministre du travail ak directeur du travail pour ñu réintégrer liggéeykat ñu delloo leen ci seen place liggéeyukaay ba jeneen jeneen jën jëm jën jëm yi jamono loolu lañuy ñuy léegi nag ñun syndicat bi noo ngi ci taxaw jonn di xuppi xinu bët bu fekkante ni gouvernement bi exécuté na li mu président wax tant su ko deful nag lii situation bi nekk nii bu ci jógee daañu jàkkaarloog hôtel fédéral patron hôtel fédéral ba Chine la te xam ngeen ni la fay dox ak li dox Sénégal bokkul ndax Chine réew la moo xam ne réewum dictateur la Sénégal nag réewu démocratie la liberté lépp am na fi ba nga xam ni loi moo fi dox ak règlement kon soo fi nekkee installé fi bañu na ko waaye nga respecté loi bi ak règlement bi su ko deful bu mbir yi jeexee situation bi dellu fa mu nekkoon syndicat bi doon jàkkaarloog moom liggéeykat yépp nañ jëlaat liggéeykat yépp contenu ci décret bi nga xam ne moom la président jël pour réintégrer travailleurs yi parce que président dafa ni à partir de 13 mars mars 13 mars interdit na liggéeykat dàq liggéeykat ci wàllu secteur hôtellerie alors moom mi jël décision bi la 20 mars pour dàq liggéeykat yi kon nag dañuy wax ministre du travail ak directeur du travail pour ñu réintégrer liggéeykat yi delloo leen ci seen place liggéeyukaay ba jëneen jëneen jën jëm jëmi jamono loolu la ñuy ñaan léegi nag ñun syndicat bi noo ngi ci taxaw jonn di xuppi xinu bët bu fekkante ni gouvernement bi exécuté na président wax tant mieux su ko deful nag lii situation bi nekk nii buñ ci jógee daañu jàkkaarloog hôtel fédéral patron hôtel fédéral ba chinois la te xam ngeen ni Chine la fay dox ak li dox Sénégal bokkul ndax Chine réew la moo xam ne réewum dictateur la Sénégal nag réewu démocratie la liberté lépp am na fi ba nga xam ni loi moo fi dox ak règlement kon soo fi nekkee installé fi bañu nu ko waaye nga respecté loi bi ak règlement bi su ko deful bu mbir yi jeexee situation bi dellu fa mu nekkoon syndicat bi dana jàkkaarloog moom merci